jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara ñu ngi koy baaxoo defee fajaru samedi mooy ànd ak yéen ci kër gi kër gi ay jataay loo xam ne mu ngi tudd azziwaaj mooy ci soxna mbaa soxna suñu denc ñu toll ci tomb bu tudd fase di ñaan yàlla bu mu bari waaw yàlla bu mu bari fase ci lislaam woroom xam-xam ya dañ doon wax ni infisaalu ahadi zawjayni anil axar mooy ñaar ñu àndoon ba mu yàgg ñu tàqali ko bokkoonug buum ba mu yàgg kenn bàyyi bàyyi buum ga bàyyi ko ka ca des waaw léeg-léeg mu am kenn ka doyalut lu bari sax lay am ñaare fu fase amee rek tolaaq am na ko xam ne kii ba sañoon sëy ba du tas wala am na ko xam ne kii ba sañoon dellu cëb sëyam waaw loolu loolu day am léeg-léeg ku góor ki lay doon fase am na waaye moom doylut vraiment nangam nangam léeg-léeg ko jigéen ki lay doon léeg-léeg circonstances yi ñuy taxaw pour fase am duñ ko mën a weesu pexe amut waaye ku jigéen ki tuuti lay dox rek ne sama jëkkër laa bëgg ku góor kii dox tuuti rek man sama jabar rek laa bëgg moo tax ci wàllu fase ulamaawul fiq dañ caa wax ñoom tam ñu ne mooy xallu aqdi nikaax bi lafsin sarix aw kinaaya maa niya dañoo wax ne fase mooy pas-pas bu ñu takkoon ñu fecc ko fase tuuti ko ñu ne mooy fecci waaw fecci fecci pas-pas boo xam ne bi moo doxoon ci diggante ñaar ñaari baat nag ñoo koy def sarix wala kinaaya sarix wala kinaaya waaw luy sarix mooy baat boo xam ne bii bi ko jëkkër ji waxee kenn du ko werante mooy daf ne fase naa la luy kinaaya mooy baat boo xam ne bu ko jëkkër waxee bu ko confirmé wut du leer bu boy kinaaya ñaar ñu ñoo am sarix wala kinaaya waaw na sunu mbokk sëriñ aadi sunu sëriñ yal na ko yàlla yokk wér léegi nga dégg ko ci waxtaani fajar yi tabarkàlla yal na yàlla yokk ko wér waaw te soxali daaraam sarix mooy baat bi boo ko waxee rek leer nañ kinaaye mooy e, baat boo xam ne bii léeru sarix mooy ku ne jabaram fase naa la baat bi ñëpp a ko dégg kon fase naa la waaw waaye kinaaye mooy doyal naa ci yow walla bëggatuma la walla kër gi yaa fi bàyyi sa bopp walla soo demee yaa xam walla ku la may guréyeel waxagu dara baat yooyu ak ay mbokkam ñooy kinaaya eh, kon alfaasu taliq walla boog baati fase yi kon nun la bu doon arab talaaq fase la firaaq fase la siraax wala saraax fase la bu doon ci baati arab waaw mu ngoog bu dee kinaaya mooy baat boo xam ne bii buñ ko confirmé wut du du du sotti ñibbil sa kër ak soxlawuma laak yaa bàyyi sa bopp yooyu yëpp buñ ko confirmer ànd ak ni yéene fase lañ koy tekkee waaw mu ngoog eh, bu baat bi xasee jib fase tàbbi moo tax sunu magum daara ma sunu sëriñ sëriñ eh, Maxtaar Jeng ca Grand Dakar ba ñu nekkee ci masalam fase ñetti yoon ak fase benn yoon mu ne ah fase day bu nit ne jabaram fase naa la tudd baat bi ba noppi fase ma tàbbi na amatul jabar am na jabar ndax ba jabaram la ba léegi ndax idda ji waaye jabar ji muy fase moom amewutu ko ñu ne ko ah mu ne bala ko amaat dañ leen a jubóole mbaa ñu juboo ba juboo ba noppi mu fasewaat loolu moo ma nekk deuxième fase waaye fase naa la juróomi yoon fase naa la ñetti yoon fase naa la fase naa la fase naa la loolu jëkkër ji koy wax xam naa ma des na ko yar nag ndax bu doon Umar ibn Xattaab dana la yar ba nga xam ne du ko defati waaye daal baat yi moom yépp mënta tekki rek ci ca saasa saasa ñetti xeeti fase yi léeg-léeg fase am fekk ndaw saa ngi toog fi xuduriha léeg-léeg fase am fekk ndaw saa ngi toog waaye léeg-léeg fase am fekk ndaw si toogut tey yàlla tere su ma mayoon ndogo yi <laughs> ma nekk dakaar di ko fase mu nekk mbar fase ma mën naa bi waaw fase ma mën naa bi ndogo ya nga ca mbar maa ngi Dakar su fekkoon mayoon nañ ma ko yàlla tere léeg-léeg ñu fase ci kanam alxaadi mooy àttekat bi juge bi léeg-léeg mu ñàkk faa nekk fase nag ci mazahib bi léeg-léeg ñu am cay wuute waaye la ëpp ca ñoom loolu la ñuy wax ndax fase amoon na lu jiitu lislaam waaw ca ceddo ga fase amoon na lu jiitu islaam e, waaye nag fase mooma fasem xoññu moo ca ëppoon fasem mooy fase ndaw si doo ko yor doo ko bàyyi bu demee ba nga xam ne idda jaa ngi bëgg a jeex nga fay liwaat yoraat yoraat ba indi bëgg a jeex nga fay liwaat yoraat te doo ko jox ay doo ko jox euh, doo doo ko jox dépense boo ko doon def ba fukk yoon it dañu dañu seetaan rek moo tax bi lislaam ñëwee limité ko ndax lislaam lu nite la ne ku fase ñu jubóole nga fasewaat ñu jubóole boo fasewaatee kenn munta jubóole lu la yoon waaye fase ñu lee nga fasewaat ñu jubóole nga fasewaat ñu jubóole nga fasewaat ah te naan ko da nga xam ne maa ngi yow de du la yor du la wàcc loolu la lislaam di bañ moo tax xoññal jigéen cib sëy ku ko xamoon doo ko def waaw wacc ma wàcc naa la rek wala wutali seede waaye ñal rek sunu borom di mer rek ngay ñal wax ne kii yaa ko doole di jubóo di wàcc di jubóo di wàcc di jubóo di wàcc rek jëmale ilaajil musamma lu jiitu lislaam looloo fi xewoon waaye bi lislaam ñëwee daf ko daf koo defar daf koo defar fase nga juboo nga ñu ne waaw nga fasewaat jubowaat ñu ne waaw nga fasewaat muy une troisième fois léegi nag day wuti jëkkër nga wuti jabar loolu la lislaam xam te itam lu lu lu lu jaadu la lu rafet la kon lu jiitu lislaam di am ceddo yi daanañu fase waaye nii lañ daan fase doo yor doo wacc waaw mu ngoog eh, cosaanu fase cosaanu fase maanaam fi fase di tege ci wàll wi aslu duhuril talaaq dañu nettali Oustaz Cheikh Tandian Azhar ibnu Jamil mu ne Abdul Wahab Thaqafi moo leen nettali ci Xaalid an Ikrama mu jël ci Ibnu Abbas mu ne jenn jigéen joo xam ne Thabit Ibnu Qays moo ko doon denc jënn jigéen joo xam ne Thabit Ibnu Qays moo ko doon denc ñoom fu ñu masaana jaaxle nag ci masalam diine dem ca sëriñ ba loolu li fekk am pénc nga koy am mi ngi ci jàmm waaye léegi ku xa ku jaaxle doo dem ca sëriñ ba déedéet ndeysaan thabit ibnu qays jabaram daal di ñëw ci yonent bi alayhi salaam ne ko yaa rasulallah mu ne ko labbayk mu ne ko thabit ibnu qays ma ma aatabu alayhi fi xuluqin wala diin mu ne ko sama jëkkër ji xeebuma diimeem ma jikkoom waaw sama jëkkër ji xeebuma diineem ma jikkoom waaye mënutuma nekk ak moom waaw hmm? waaw waaw ndeysaan yonent bi alayhi dégg waxi ndaw si sama jëkkër ji xeebuma diineem xeebuma jikkoom waaye mënutuma ànd ak moom am na lu xew loolu xew nag mu ne su ko wax ci kaw moo tax mu ne ko walakinni akrahu al kufr waaw am na lu xew akrahu al kufr mooy bëggumaa goree di bëggumaa di mag ñi xam waxin xam nañ ne jigéen ji lu mu bëgg a wax ndax jëkkër joo xam ne diina ja macha allah jukko ja it macha allah am na lu xew lees mënut a wax ca kaw am na ñoo xam ne ñi ngi sëy sëy yoo xam ne looloo ngi ci seen jëkkër diina ji tabaarkàlla kenn xeebu ko ci jukko ji noonu waaye ak waaye nag yaa quelque chose loo xam ne lii dee su ko wax ca kaw mënee su ko wax kenn mënu ci waxtaan ak sa yaay déedéet kenn mënu ci waxtaan ak sa baay mukk ki nga ci mën a waxtaan daal mooy ja ab jàmbur moo tax mag ñi daan wut baay dikkee baay joo xam ne bi joy su yii xewee man nga ko ko wax te doo àgg ci li nga bëgg a wax xam nga ko nekk sa jëkkër ba mu yàgg yëgatoo ko li li ñu naan sentiratuma la am na lu xew waaw sentiratuma la hmm? te nag ñaari bu amee rek al maanaam goree di tàmbali am waaw goree di tàmbali am mooy lan euh, dootoo jëlug ay dootoo soxlag ay dootoo tal cuuraay waaw dootoo lalub lal waaw dootoo duy satala gi te loolu loolu lay tuddee alkufru waaw ne ci kër gi sa dara manqué wut te doo jëlug ay mu ne ko loolu lay bañ loolu lay bañ alayhi salaatu salaam laaj ko may gu njëkk ga lu mu doonoon mu ne ko xadiqa ataru diina ali xadiqata waaw lum la may may gu njëkk mu ne ko ab terrain ab terrain la ma mayoon Hmm. ndax mën nga koo delloob teereem mu ne waaw cëy ndax mën nga koo delloob teereem mu ne waaw moo tax ñiy teewe takk yi di seede sëy yi war nañoo xam may yi may gu njëkk geeg wari gar yi ñu xàmmee leen ba bu ndaw si tollee fii ndaw si toll ki leen di àtte mën a xam ataru diina ali xadiqata mais bu xamul xadiqata xamuloo may gu njëkk gi nu mu toll may gu njëkk geeg warigar yi jaxasoo bu guddee góor gu mer wana mën a wax lu nekk foofu tomb la bu am solo lan lañ ko mayoon may gu njëkk waaw mu ne moom terrain bii la ko mayoon yonent bi laaj ko ndax mën koo delloo teereem xaalat naam xaalat naam mën naa koo delloo teereem ci lu gaaw alayhi salaatu salaam ne jëkkër ja aqbilil xadiqa wa taliqa tatliqa jëlal sab terrain te wàcc ko jëlal sab terrain te wacc ko moo tax ki summeeku ñu wax ne du jàpp idda ñetti règle déedéet moom règle jëm njëkk a gis rek idda ji jeex na wa taliqa tatliqa waaw mu ngoog nga wàcc ko loolu daa bokk ci kon cosaanul fase ci lislaam alayhi salaam wax ko xays bi jabaram jàmbatee njàmbat lii sama jëkkër ji diineem xeebuma ko xeebuma ko ci jikkoom foofu nag laa mën a yem <laughs> ndeysaan lu am solo la eh, moom nag talaaq eh, am na ay atte inda ahli sunna am na atte inda ahli sunna danañ dolli ci baat biit wal jamaa indi ahli sunna daal di am ñu yem ci indi ahli sunna ñooñu dañoo jàpp ne ahlu sunna mooy xeetu yonent bi yépp ñooy ahlu sunna ñu loolu lañ jàpp altalaaqu wa ahkaamuhu inda ahli mooy jullit yëpp buñ ca boolewal jamaa muy ak mbooloom waaw ahlu sunna wal jamaa léeg ñu ñu tudde baat bi noonu waaye ahlu sunna su booba boo ci mi moo gën a yaatu boo àggee ci wal jamaa waaw na ma sëriñ si baal ci wàllu fase eh, ca sóoratu al baqara ba muy am ñaari téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom-ñeent la borom bi wax lu am solo ci fase at-talaaqu fase muñ mën a defar marrataani ñaar yoon lay am fase muñ mën a defar ñaar yoon lay am bu ñettee mu ni defar luy fase mu ñu defar mooy fase moo xam ne dañoo fayli kiñ fase fekk dañ koo fase fasem fayli fase moomu bu idda ji jeexagut maanaam fase nañ tey ci ëllëg sa jubóo di bëgg am wala une semaine lañu am jubóo di bëgg am wala un mois wala deux nga xam ne ndaw si gis na fi benn règle jàpp ñaar loolu pour jubóo mu gën a yomb bu idda jeexee waaw ah, bu idda ji jeexagul nga xam ne ci semaine bi la deux semaines trois semaines la amagum benn règle la fi ndaw si gisagum mu ngi ci ñaareel foofu defar ko dañuy waxtaan rek waaw soññaat ku jigéen ki mu góor góorgóorlu soññ ku góor ki mu góor góorlu delloo leen seen néeg ku góor ki fexee neexal ku jigéen ki ndax fii dutul am ku jigéen ki fexee neexal ku góor ki ndax lii dutuñ ci àgg waaye am nañ benn fase bu ñu defar mooy fase na ko juboo nañu ñu ñu notte ko ci seen agenda waaw fase na ko benn fase bu ñu defar mi ngi ko fase woon le 6 euh, octobre ñu ngi juboo peut-être le 20 wala le 12 fase moomu bu ñaaraa bu ñaaraat bu ñaaree euh, ñu bëgg koo defar lu jiitu idda ji jeex ba tey noonu lay def bu ñu toogee nag ba idda ja jeex ndaw si gis na baax fóot gisaat baax fóot gisaat baax ah, léegi nag mën nañ ko defar ba tey waaye nag takkaat lay doon mbokk yi nañ jàng loolu fase mi bu idda ji jeexagul waxtaan juboo la bu idda ji jeexee takkaat la première fase noonu la deuxième fase noonu la troisième bi nag idda ja jeex naag jeexut amu ci doom ju góor la ëmb ak ëmb ko amu ci waaw li feeg muy seen jabaram la amu ci atalaaxu fase muñ mën a defar marrataani mu ne yéen jëkkër yi fa imsaakum bi maaruf imsaak nag mooy ngëb leen ngëb euh, bokkut ak téye walla di wax ngëb di wax téye di wax mooy waaw euh, suñ mbokk ma la imaam Yusuf Ka yàlla na ko yàlla yokku wér waaw ku sawar la ci baat yooyu te te te jekku ko ndeysaan yàlla yàlla yokk ko wér waaw tiye ngëp ak mooy mu ne fa imsaakum bi maaruf téye leen jigéen ñi ne téye leen ci njekk moo gën fase fasewaat fase ñetti yoon mu dem nga naan euh, ndax laajte na maag ndax gëñ ko ko gis ndax gëñ ko ko dégg question yu ne jigéen ñaa ngi euh, góor ñaa ngi koy laajte waaw ndax ndaw si laajte na ma ba nga fa demee mu ne yow la doon waxtaane ba ni ma fa jógee <laughs> waaw ndeysaan sunu mbokk ma Golbert Diagne yàlla na ko yàlla yërëm mu ngoog ndax laajte na ma mu ne yow la doon waxtaane ba ni ma fa jógee ah seetaane moom ñu man rek waaye man de moom rek laa bëgg sunu borom ne déedéet koo munta muñ da koy muñal fa imsaakum bi maaruf waaw téye leen jigéen ñi gis nga koo téye ci maaruf du fay waxuma laa tas maaruf mooy lan mooy li ngay defal sa jabar te ku koy netti lu sëgg mooy lan mooy li ngay defal sa jabar te boo toogoon ak say goro buñ koy netti lu sëgg loolu mooy maaruf fa imsaakum bi maaruf jigéen joo téye ci maaruf mu toog fa imsaakum bi maaruf waaw jigéen joo téye ci maaruf rek mu toog mooy bu fekkee manquéwul euh, ak ay manquéwul dépense manquéwul koddaay manquéwul dëkkuwaay can ga mat na li cay teg ci diggante muy baax baax yi ñoom seen yooyu wax ju rafet ji mat na kooku du fay waxuma laa muy tas waaw suñu borom ne di góorgóorlu leen koo munta muñ da nga koy muñal ñu ne waaw mu ne aw tasirihum bi ihsaan bu ngeen demee ba tàqalikoo amit na rafet parce que tàqalikoo bu rafet day dimbali fay li fase mu ñaaw day day xajamal fay li am na noo xam ne boo ko defee jigéen boo koy jëli day fekk yaayam mer boole ca merum ndaw si te léeg-léeg merum ndaw si jeex te merum yaayam du jeex ndax yëg nañ ma baal nag yëg-yëg yi yaay yi ci sëy bi daa ko teg yëg-yëgi doom ji sëy li muy yëg moom ba meram gaaw a jeex yaay du ko yëg feneen la ko doon yëg waaye du fii nga bëgg dellu sa jëkkër sa yaay na la boo ca delloo ñu tàqali ko adduna ak alaxira nga am problème nga am problème bàyyi itam noonu la merum bàyyi cib sëy moo tax ñeen ñaar ñiy sëy seen parent yi les quatre parents buñ ci yëg dara xeex yeeg xuloo yeeg ñàkk añ geeg lépp na leen ump waaye buñ ko yëg rek ngeen di am fa imsaakum bi maaruf aw tasrihum bi ihsaan ay borom fa imsaakum bi aw tasrihum bi ihsaan yi beneen bindangu noonu ci aziwaaj muy kër gi waaw buñ ko dégloo moom tam ñetti yoon jàpp ñeent incha allah dañu indi bind bu bees ci bunt boobu di atalaaq fil islaam jaajëfal nañ ñëpp jégalu sëriñ si soxna yi ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko yàlla na fase yi wàññeeku bu munte jeex tàkkit waaw ak seen fa war a yëkkatee jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen di kayit bëgg la na fi ñu fàncal xibaar yi ci tubaab fi ñu fàncal ko ci wolof ñaaneen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu àndandoo bii di c s ci bitim réew na ñëw li ci biir réew mi yàlla na jar ak suñu àndandoo bii di Fari Industrie di indi ndox mi di waalo tàngal bége mii ak pënd wi di boisson yi ak ki nga xam ne mooy bëgg a ñëw yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa